mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ziar euh, bépp sénégalais bu ñuy déglu bu ñuy seetaan damay euh, mottali rekk ci li suñu yeneen camarades yi ubbee waxtaan bi te muy lu am solo ñu fas yéene nag waxtaan ak askanu senegal bëgg waxtaan ak askanu Sénégal waxtaan bu dal waxtaan ci li ñu bokk muy réew mi ndax it kenn ku ne ci ñun am na lu la màndargal loo xam ne au moins même su dee benn rek am na lenn lu la màndargal loo xam ne bokkoo kook sa morom moo xam cib dëkk boo dëkk boo cosaanoo moo xam ci waaso goo bokk walla diine gi wala walla wala waaye li nga xam ne moo ñu boole ñun ñëpp te kenn mënu cee bot di moroomam loolu mooy réew mi Sénégal moo tax ak lu ñu mën a am ci ay différence rek yàlla mi ñu boole sàkk ñun ñëpp mu nammee ci ñun ñu ànd daf ñoo boole ci lu am solo muy réew ba nga xam ne tey képp kuy sénégalais rek ñun ñoo bokk destin mooy ñoo bokk jëmukaay imma réew mi day baax baaxal ñëpp wala mu bon bonal ñëpp parce que même bu réew mi bone ñi nga xam ne jàpp nañ ni ñoom exception lañu réew mi baax na ci ñoom bu ñu demee ba ci biir seetlu dinañ gis ni ñoom ñoo gën a sonn daanaka ndax réew mi baaxul ci ñoom ndax munoo nekk benn ilo de prospérité munoo nekk yow benn lu ñu ber ci naataange ci am-am ci mën-mën ci sañ-sañ te li la wër yëpp te di ay millions yi millions ay millions millions nit ñoom nekk ci guuta gi bu yàggee ñu jëli si la yow si sa bopp wala loo fortaatu séddoo kook ñoom li ñuy wax ni ku fekk euh, juróom-ñeenti miskin nga ne tey ma def leen ñoom ñëpp ay richard boo moytul yaay doon fukkeel ba kon réew mi lañu bokk réew moom lañu bëgg ñu waxtaane ko li xew démb dañu wax ñun ni réew mi dafa mel ni fatt na loolu kenn du ko weddi réew mi fatt na ñu dem ba àdduna wërngal képp nag d'accord ni senegal réew mi dafa mel ni fatt na ba tey ñépp a ngi jël seeni gët daal koy samp ci senegal ñépp a ngi ubbi seeni nopp di déglu senegal ndax it Sénégal réew bu ndaw la ci superficie cent quatre vingt mille kilomètres carrés réew mu mag réew mu ndaw la ci koom-koom waaye yàlla dafa am lu mu may Sénégal ci tur ak luñ ko xoolee te mu jiitu woon ci ci Afrique waaye tey dafa mel ni raw na nit ñi roppi nañ ñu ci bu baax a baax mooy lu ñu yaakaaroon ci ñun ci démocratie ak stabilité politique moo tax réew mu mel noonu bu commencé am yenn yëngu-yëngu nañ koy xoolee ci àdduna bi yëpp du bokk ak réew moo xam ne miinoon nañ ci moom ay yëngu-yëngu ay coup d'état ay guerre civile ak yu demee noonu ñaar yooyu du ñu bokk ñu ne nag dafa mel ni li yëngal réew mi mi ngi jóge ci kujje politique bi te mi ngi gën a fës ci kujje politique bi diggante parti état man du ma wax sax benn bokk yaakaar ndax benn bokk yaakaar moom defe naa langaam bee ci bëri waaye li fa tekki mën nañ koo compter waaye parti état bi nga xam ne mooy Macky Sall ak partem ak seen benn benn allié yooyu ci benn fànn ci beneen fànn bi coalition Yewwi Askan Wi nga xam ne moo ñu boole ñun ñiy toog fii xëccoo bi tar ma yàgg wax nag ni bu doon ñun ak Benno Bokk Yaakaar kese diggante nit ak nit parti ak parti coalition coalition wax ja jeex na bu yàgg loolu amul ku mu ump senegal bañ na ba coow li bëri na trop waaye bu desee lu dul génn ci terrain bi loo leen de kon li tax coow li am ak fan lañu ñu jëlee ñoom seen dëgërlaay mooy utiliser li nga xam ne lépp ay jumtukaayu état la ñu tegoon ko seen loxo pour ñu toppatoo nekkinu sénégalais yi ci wàllu kaaraange ci wàllu koom-koom ci wàllu njàng ci wàllu leneen ak leneen ñu jël loolu yëpp détourné ko tey ne faw rek ñu faagaagal coalition Yewwi Askan Wi moo tax keroog bi ñu mujjee daje fii ñu ne leen ñun yeewi askan wi jàpp nañ ni ñaari jàmbaar wala ñaari euh, mbër bu ñuy jàmmarloo mbir mi yàgg te métti faw rekk mu am kuy àtte ñun nañu jàpp ni àtte gi mënul jóge lu dul ci askan wi nga xam ne muy ñoom muy ñun kenn ku nekk nee na askan wi la fi bëgg a nekkal kenn ku ne nee na askan wi la bëgg a jëriñ kenn ku ne nee na askan wi la bëgg a defaral kon kay askan woowu moo ñu war a àtte moo tax nag ñu ne nañu delloo askan wi kàddu gi delloo askan wi kàddu gi mooy may askan wi fu mu waxee fu mu exprimer woo fu mu génnee lu nekk ci moom ba ñu xam ndax askan wi Macky Sall la àndal ci lii muy def am askan wi opposition bi la àndal ci lii muy xeex loolu mooy li waral li am démb mu yoon nag loo xam ne lu ne mënoon na ci am waaye ñun wóolu nañ suñu bopp ndax xam nañu li ñu séq ak askan wi xam nañu li ñu jiyanteeg askan wi ndax bi ñu dooree ba léegi askan wi dinañ leen wax dëgg dinañ leen xeexal li nga xam ne moo yàq réew mi bis bu ne wax leen ko li ñuy làq ci ay njomme bis bu ne ñu sulli ko teg ko ci loxo askan wi kon ñun wóolu nañ suñu diggante ak askan woowu te xam nañ ni askan wi xam na ni suñu yéene yéene gu sell la ci li defar réew mi moo tax ñu ne nañu delloo kàddu gi askan wi imma askan wi nañu wax ni ah d'accord ñoo yéen ànduñoo yéen Macky Sall la ñu àndal ak ñi mu ñi mu ñi mu ñi mu bokk wala askan wi nañu yéen lañu àndal ci li ngeen xeex yéen la nangul li ngeen woote jàpp naa ni képp kuy sénégalais fanaan démb fii ci réew mi ak képp kuy nit ak foo nekk ci àdduna démb mën ngaa seede ni askan wi tontu na te tontom mooy yeewi askan wi la ànd ak loolu amul lu ñuy lam ñi gën a bañ yeewi askan wi sax nga xam ne bés bu ne ñu jël seeni titre journaux bind loo xam ne ñoom seen bopp muñ nañoo muñ mënuñoo ñu mujj koo nangu kon gàcce ngaalaama askanu senegal ndax lii nag dama jàpp ni sax guléet la ci àdduna ndax bi ñuy proposé forme bi yàlla mi ñu tiim xam ne ni xamuñu woon ni mës naa am feneen ak feneen buñ ko waxee ba coow li commencé lañ ñu ne am na yeneen réew yi mu amoon waaye loolu mooy firndeel ni Sénégal problème am na ndax exemple li ñu jox yépp dictature la woon dañuy wax Chili la amoon bi fa Pinochet di nekk Pinochet ñëpp xam nañu dictature sanglante la woon li mu rey ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll ba tey jii chilien yi ñu ngi vivre séquelles dictature Pinochet ñu ne ñu foofu la amoon dellu si Iran la amoon ci jamono Shah d'Iran nga xam ne dañ ko ngémboon mu noot askan wi moom ak ñi mu àndal occidentaux yi gëmm ci seen i gët fii léeg-léeg bi nga xam ne mu ngi woon Iran yombal na leen ko luñ ci bëgg a yóbbu kon suñu joxee ñaari exemple yooyu ñetteel ba di Macky Sall wane na ni lañ doon wax ci Firawna loolu fees na fees na te askan wi yépp nag nangu ko ba génn démb wane ko firndeel ko lu amul benn lam-lame kon loolu c'est pas à l'honneur de Macky Sall et de son régime waaye ñu bëgg a waxtaan ak askan wi ne ak mbir mi nu mu xumb-xumb du woon bu mbaay feet taxu ñoo jóg xol bu naqari moo ñu tax a jóg nit nag ni nga mën a fësalee sab naqar mun na bëri forme bii paa ñu tànn form bi muy forme boo xam ne jàpp naa ni ci forme yu gën a mate la ci nu nit mën a fësalee ay naqaram waaye defuñu ko pour foo ñu wax ko léegi parce que léeg-léeg mu am ñu bëgg a jaxase amoon na sax ñu ne dafay ume peut-être que moom ñoom moom moom yor nguur gi lay um ñenn ñu ne suñ ko defee taw du am par yàlla def ñu xëy Sénégal yëpp taw ba Ndakaaru jii nga xam ne la léeg dañ daan xaar taw lu bëree bëri mu taw waaye lañ ci doon jublu ndax ñun dañoo nekk ci dëj dañoo am ay gone yu ñu faagagal dañoo nekk ci dëj gone yooyu sangaguñ leen defaraguñ leen dugalaguñ leen ci suuf loolu duñ ko fàtte kon ñun nekkuñu ci caaxaan waaye lii dafa bokk ci xeex bi ñu bëgg a fàttali sénégalais bu nekk ni mën nañ ko defee kenn ku nekk ni mu ko yéegee waaye forme de lutte la forme xeex contre dictature Macky Sall la ak yorin gu gu ñaaw gi mu yor réew mi moom ak njabootam ci politique ak njabootam ci deret loolu lu mat a fàttali la di wax sénégalais yi tamit ni lii nañ ko waxoon keroog rek luy tàmbali la luy tàmbali la te dàqantewul ak yeneen xeetu xeex yi nga xam ne xam nañ ko ba noppi parce que nguur gu mel ni nguur Macky sal kuy jàmmaarloog moom il faut nga bëri pax kon bu ñu jàpp ni lii dafa dàq lépp wala lii dafa yem ci bii déedéet waaye li ñuy ñaan askan wi mooy nañ ñu déglu parce que ñu bëri woon nañu nañu ndax dañ koy def bés bu ne déedéet duñ ko def bés bu ne lu ñuy organiser la def nañ ko démb tabarkalla macha allah yàlla may nañu ci lu kawe suñu njort dinañ leen waxaat kañ lañ koy defaat te sorewul te dinañ ko defaat di ko defaat di ko defaat ba baa Macky Sall di ñu abal réew mi waaye lu ñuy organiser la te bañ koy defati lii ñu ci amoon démb sàkku nañu ci Sénégalais yi ñu am lu ko lu ko mat ñett wala ñeent loolu lañuy ñuy ñaan Sénégalais yi waaye dinañ leen wax prochaine date bi kañ la te dina tombeek loo xam ne lu Sénégal yëpp di nangu ni lu ñu war a def la te dinañ ko def ci anam goo xam ne dina dinañ ko ful ba mu ëpp lii luñ ci am démb kon ñi ngi jaajëfal sénégalais yëpp wax ni kóolute gi ngeen am ci ñun ñi leader yi yëpp toog fi ngeen gis fi ak ñi fi newul parce que dañoo am ngànt kóolute googu duñ ko mus a wor parce que gor am na lu mu àttanut moo tax ñi yor nguur gi duñu gor ndax 17 millions de sénégalais ñi ci war a mën a nekk président la république ci 17 millions yooyu ci ñuy dund ci jamono jii laa wax de amaana bu bëree ba bëri ñaar ba ñett la wala juróom ndax siikalu président ni mu mel yàlla tànn la jaarale ko ci Sénégal yi ne wóolu nañ la ba jox nañ la réew nga digoon Sénégal lu toll ni àdduna dem ba toog loolu yëpp nga génn ci wëlbatiku ba set wicc ba sénégalais yi dafa mel ni li ñu doon xeex démb ak barki démb tey la waalo gën a ay loolu gore di weesuwul loolu wor sa askan waaye wor yàlla mi la bind loolu nag bu soobee kiy bind ñun ñi duñu mës a dal ñuy wax tamit ni bu ñu fàtte mukk lan moo ñu tax xeex lan moo tax ñuy xeex kenn ku ne am nga mun nga ci am loo xam ne sa spécificité la waaye dafa am loo xam ne ñun ñëpp la tënk mooy Macky Sall bi mu toogee ci bopp réew mi léegi ñëpp dëppoo nañ ni réew mi doxut ndaw ñi kan moo ci am liggéey xam nga bi ñu génnee ci événement mars daaw dafa ne dégg na Sénégalais yi waaye dégg na yi xam ngeen li mu ci jubloon mooy lii ma dal dootuma dal maa ngi dem uti ay ngànnaay maa ngi dem recruter ay poli ay alkaati ku fi yëngatooti dinaa la duma duma yoo xam ne kenn dootul ñeme sax yëngal baaraam loolu la doon wax dégg naa leen yéen sénégalais yi waaye du woon dégg message u yi nekkoon li ñu la doon doye yow ba teg la ci boppu réew mi du lii ngay def fi mu toll yi ba tax ñu fàttali tuuti lan moo ñu tax a xeex li ñu tax xeex bu ci njëkk mooy tey senegal ndóol na ndóol goo xam ne ñun dañuy am gàcce at wu ne bu ñu génnee classement réew yi gën a ndóol ci Sénégal ci àdduna bi ñu ne fukk ak gën a ndóol ci àdduna bi Sénégal ci la bokk te boobu jamono amul lu ñu yàlla desel ci koom waaye Macky Sall jaay na lépp du pétrole du gaas du or du zircon du géej gi muy euh, jën gi suuf si lépp loo mën a xalaat fer bi phosphate bi lépp Macky Sall jaay na ko te loolu ñëpp xam nañ ko bu ne mun nañ leen wax kan la ko jaay ci yan anam la ko jaay ak lan la ci Sénégal ñàkk ak lan la ci Sénégal am mu jur ndóol gi ñuy dund te fileeg makki Sall mi ngi fi ñun ñoo leen ko wax rawatina ndaw ñi dina metti trop ci yéen Sénégal tey réew yi ñuy wër yépp Sénégal ëpp normalement PIB mooy suñu doon natt koom-koom bi boo génnee Côte d'Ivoire ci zone moo ci tegu waaye senegal moo gën a kawe ay njëg ci son UEMOA bi daanaka Mali Burkina Niger ak feneen ak feneen foo dem. Sénégal li fi ceeb di jar diwlin di ko fi jar essence di ko fi jar ak leneen ak leneen du jar foofu am na ci ñoo xam ne sax fii lañuy ñuy ci pooru Dakar bi pour mun a yeggali seen marchandise sa suñu demee foofu ñoo ñuy gën a néewle njëg Sénégalais yi sonn nañ ba fu sonn yem suñu yaay yi sonn nañu xale yi gàcce la ñuy am parce que dem ba toll ni nga toll sol di mun a sol sa dàllu bàyyi te munoo joxe mille francs par jour ci kër yi boo ndekkee dañ la koo jox te nit ñi bëgg nañu liggéey sénégalais yi sonn nañu secteur économique yi mënoo ci génne benn transport bi sonn na artisanat bi sonn na industrie bi sonn na maraîchage bi ak maraîchage bi sonn na agriculture bi waxi nopp napp gi càmm gi loo jël ci Sénégal foo tudd so secteur yi nga xam ne rek ñooy salarié yi ñoom ñoo gën a deeti ñépp a sonn Sénégal ñaareel bi muy situation réew mi ci li nga xam ne kenn ku ne ci ñun bëgg nga dund ci réew moo xam ne dafa am démocratie ak liberté parce que gis nga yooyu fu mu ñàkk rek njaaxum am gis nga ñun ñii xamuñu lu bari mais ku fi nekkoon ci réew moo xam ne dictature am na fa walla ñu ne régime militaire ñëw bu sanguinaire toog na fi da ngay gis ñenn jóge ci yenn réew Afrique yi bu ñu ñëwee Sénégal day mel ni àjjana lañ ñëw parce que dañoo jot a dund dictature loolu nag ab xeex la boo xam ne ay conquête démocratique la ay génération génération xeex ko depuis bi fi tubaab bi di nekk ba tey jii ba ñu ko mujjee xeex ñu ngi wax tey le 23 juin 2022 23 juin 2011 am na lu fi xewoon Sénégal dégg ngeen keroog ni professeur bàcci Bathily wax nga xam ne monument la ci xeex démocratie fii muy lu am solo loolu yëpp nag ñu dajale woon ba teg ko fi menn Macky Sall ñëw na nee na démocratie googu dootu fi am parce que moom dafa bëgg a téye nguur gi ci anam goo xam ne du ko séddoo kenn du ci wax ak kenn te daf fee bëgg a toog à vie mooy li ko desee ci ngiru dundam dafa bëgg a nekk président la république mënaas boobu bokk na ci li ñuy xeex tey te li ko mën a firndeel bëri na Macky bi mu fi nekkee léegi justice bi musiba la ci senegal kenn ku ne ci ñun fii dès lors nee nga man ànduma ak Macky xamal ni sa cellule Macky Sall defar na ko ba noppi ba toog Macky Sall bi mu fi nekkee léegi keroog bi ñuy def décompte bi te dinañ ko publier tëj na lu ëpp 700 personnes pour motif politique 700 personnes tëj na ko pour motif politique ñenn ñi léegi ñu ngi toog ci conseil des ministres parce que moyen de chantage da koy def ci nit ñi moom jàpp na ni faw rek nit ñi ànd ak moom ku àndul ak moom mu ne la dinaa la pexeel bi mu fi toogee ba léegi lu ëpp 700 personnes téye na leen ci motif politique te dinañ leen génnee liste bi yëpp ak seeni i tur sant ñii xam ngeen leen siiw nañu ñii peut-être siiwuñu lépp Macky Sall leen téye ñii activiste lañu ñii acteur politique lañu ñii société civile la ñii syndicaliste lañu ñii ay chroniqueur lañu kenn xamul ñaata nit la Macky Sall tëj leen ci kaso bi lépp nag ci métital léegi rek maa ngi gis information xaw ma ndax dëgg la am ni Cheikh Cheikh Bara Dolly fi mu ne nii paquetage dañ ko yóbbu chambre bi sax ah. paquetage dañ ko yóbbu ci koo xam ne d'abord lañ la jàppee du yoon mënuñu laa jàpp en tant que député def détournement de procédure pour yóbbu la en instruction ba pare yóbbu ko paquetage loolu yëpp lu mu ci jublu mooy métital toroxal nooy def rek ba nit ki souffrir moo tax gis nga yéene néeg la àdduna commencé gul bay jeex ñu gis sa ci kanam bu soobee yàlla Macky Sall bi mu toogeeg léegi les forces de défense et de sécurité dafa jël ay nit teg leen ci bopp force de défense et de sécurité ñoo xam ne c'est des criminels sanguinaires ku xam seen carrière xam ni yàgg nañoo rey nit ne nag faagaagal leen ku yëngatu dóor leen wala rey leen bi ñoo na bee ak Ziguinchor rey nañ fa ñaari nit xam ngeen li tax ba léegi mënuñ famille yi mënuñoo jot ci koor yi parce que dem nañu la ñu tàmm def mettre pression ci médecin légiste bi ngeen jégal mu ci kàddu bi mu wax lu dul dëgg ne bal reyu ko ab paakaa ko rey ñu gaawantu mobiliser seeni médias ñu def ay titres yu rëy famille bi ne leen d'accord waxu leen dëgg waaye jox leen ñu corps bi ñu def contre expertise ñu lànk ne duñ joxe corps bi ba léegi ñu ngi jël corps yi tëj ko ci morgue bi morgue bi ñoo na fi mu ne nii zig euh, gendarmerie moo koy garder pour bañ rek famille yi jot corps yi pour def seen contre expertise xanaa kay du ñu jóg ñoom dem suuli doomu jàmbur yi toowutaat nañ ko delloo te xaw ma lu ñuy lijjanti ci biir xaw ma ñu ngi dagg di opérer di tëj ay ay ay fatt ay bunt pour ñu bañ a gis ni lii bal la lu am àjjuma passé ba tey jii buggoo joxe koor yi te yow génn nga ne paaka la joxel koor yi ñu contre expertiser parce que dañu transformer suñu force de défense et de sécurité du ñëpp nag waaye dañoo jël ay associés notoires dugal leen ci biir ñooñu ñooy reyaate ñooñu ñooy tiire à balles ci kaw des foules désarmées loolu mooy bilan Macky Sall ci wàllu euh, euh, wàllu administration waxatuñu l'administration a été clochardisée mooy administration bu màndi ñu jël ay nit gis ngeen li direction générale des élections def mais li gën a garaaw mooy ay nervi yi nga xam ne Macky Sall da leen di recruter nervi ñëpp xam ko ci Sénégal président de la République buy recruter ay nervi daaw bu muy def tournéem Fouta ñëpp gis nañu ay nervi yu mu recruter alkaat yi taxaw di seetaan tey manifestation bu am nervi yi siège APR la ñuy jóge nekk ci ay pick ñëw romb alkaat yi ñoom ñëpp ñu leen di seetaan ñuy dal ci kaw xale yi démb comme defet bi ñu am démb métti dañu xaar ba xaaju guddi ñu dem dajj ay buntu néegu étudiant ñaari étudiant Pastef ak benn étudiant FRAPP jam leen ay paaka ba kenn ki mi ngi dans une situation critique à l'hôpital principal fi mu toll nii avec la bénédiction du directeur du COUD ndax mooy recruter nervi yi Macky Sall encouragé ko ci lii moo xew senegal moo tax sooy dégg yenn wax yi ngeen baal ma ci kii waaye da naan doy na waar daal ma yemale ko foofu sooy dégg yenn wax yi te muy jóge yenn saa ci gémmiñu kilifa dangay xam ni lii xew senegal mënul woon ñàkk xew ndax dafa am ñuy légitimer loolu ku toog naan xale bu dem ci manifestation soo fa dee yaa mag yaa ñàkk sa bakkan yow yaa ngi incité pour ñu rey parce que manifestation ak dee lan la ñu sëf dem manifester pacifiquement ñibbi nit toog naan boo fa deewee yaay trik yow sa bopp tu fais l'apologie de l'assassinat des assassinats ciblés te loolu moo xew Sénégal fi ñu toll nii ba tax ñu ne leen li xew tey nag ñu yokk ci yeneen ñaar yu am solo te lépp nag dama bëgg sénégalais yi dégluñu système Macky Sall ngi tënku ci ay nit te dama leen yàggal lim dinaa leen di mat système Macky moom Macky Sall la moom ci boppam ñëpp xam ni xam mooy kan ci ñàkk a wekk sénégalais yi moom waxatul ak sénégalais yi bañ na ba démb bi mu jaaxle ba jaaxle dañu leen génne koo xam ne loolu la ñuy wax le le France Afrique dëgg dëgg dëgg muy Robert Bourgi nga xam ne gëjoon nañ ko dégg waaye li mu wax dafa leer parce que aveu la nee na je me rends yi xam nañu valeur Macky Sall ci international loolu li mu wund mooy moom xam nañu ni sénégalais yi wàcc nañu Macky Sall bëggatuñ ko moo tax mu ñëw naa leen yéen seen waaj yi est-ce que xam ngeen ko waaye lan mooy valeur Macky Sall sur l'international ñaareel bi mooy fu mu jaaxlee nag ñi ko ngemb ci bitim réew ñoo ñëw wallu ko Macky Sall waxatul ak sénégalais yi de. Macky Sall pare na pour rey sénégalais yépp benn par benn pour mun a toog ci pouvoir waaye waxatul ak sénégalais yi loolu na ko ñëpp xam waaye système am te sénégalais yi waruñu nangu loolu parce que nit ak ndomb tànk bu ñu la mën a joxit nit kese nga ñii bëgg a yàq réew mi benn Antoine Diome la muy ab nit bu dangereux boo xam ne bu ko nit ñi xamoon ak yan logique la yan lobi la bokk yan lobby la bokk ak ñan ñoo koy suukat ñaareel bi mooy maître Malick Sall ministre de la justice un homme d'une arrogance boo xoolee xar kanam bi sax xam ni kii ku arrogant buy wax ak nit ñi mel ni ku leen jéppi musiba weesuwul maître Malick Sall ñetteel bi mooy général Moussa Fall général Moussa Fall rey nit ak naan ndox la yemale te loolu da doorul tey Macky Sall teg ko fa pour ne ko del rey ñeenteel bi mooy Bokar Yàgg commissaire Bokar Yàgg ñu mu jox police bi mu ak ñi ñuy wooye juróom-ñaar yi nekk conseil constitutionnel ay pyromane ñi ngi noonu mooy ñoo xam ne dañuy taal ay day rek dafa dem làqatu fële taxaw mel ni du ñoom boo leen gisee ak seen i ngandim robb ñu xonk mel ni kankura nga foog ni ñii ay nit lañu fekk duñu dara lu ñu leen jox rek ñu gaawantu lu ñu leen sant noonu lañu koy defee seen yoon newul ci constitution newul ci loi ak Cheikh Tidiane ñu wax na ko léegi cour suprême ak ñi fa ne ak procureur de la république wala les procureurs parce que ñoom ñëpp presque benn lañ am na peut-être benn benn exception ñii ñoo nar a taal Sénégal est-ce que ñun 17 millions de Sénégalais war nañoo nangu lii tey ñi ngi def ay affaires yoo xam ne kenn xamul noo ko mën a xoolal ay xale yu ñu jàpp yow jàpp nga xale ci manifestation am na ci ñoo xam ne sax mineur lañu koo jàpp ba pare c'est un citoyen yorul arme yorul dara nga yóbbu ko ba yaa tëj ko jël ay crosse fatal dóor ko ba toj bopp bi léegi laa jóge coupé ak avocat maître Diagne Ziguinchor am na xale boo xam ne mi ngi diggante dund ak dee jàpp nañ ko boobu commissariat dañ koo dóor a dóor ñu ne leen évacuer leen ko hôpital ñu lànk ne duñ ko évacuer hôpital loolu ban rapport la am avec l' exercice profession de policier te nag nit ñi dinañ commencé fayu ah, parce que ci dëkk bi la ñu dëkk ñi ngay dóor dañu am njaboot nga am njaboot xam nañ foo dëkk xam ko xam nañ koo doon am na loo xam ne amul benn rapport ak policier te nit ñi nañ jël seen matuwaay de parce que foofu la ñuy mujjee ci réew mi jàpp nit teg ko di ko joggati di ko dóor yor ay crosse fital di ko jam ay lu ne nga jam ko ko mais au nom de quoi ñu ngi lancé un appel au forces de défense et de sécurité nañu delloo ci seen xel parce que ñii di leen utiliser pour loolu ñooñu seen bopp lañ fi nekkal ay milliards lañu yor ñoom toog ci yow ñu lay fay xaw ma lan ba pare naan la demal dóor nit ñi bu ñu génnee rek mel ni du ñoom di gentil gentilu di baax baaxlu man xaw ma ndax suñ leen di yónni léegi dañ dañ leen di jox yu ñuy naan wala parce que ki ngay dajeel ci beneen anam ak soo dajeek moom foofu du doon benn nit bi lan moo ko fi jar Macky Sall day dem au plus tard 2024 mu jóge fi ala kulli xaal kon dañu delloo si seen xel du ngeen ay bàyyi ma ay nit ngeen tenue bi ngeen sol teewul ngeen nekk nit di lancer un appel en notre armée armée nationale la bu leen bàyyi général Moussa Fall ak Macky Sall def li ñu bëgg a def fii ci réew mi sénégalais am nañu yaakaar trop ci yéen bëgg nañ leen naw lañ leen les troupes gendarmes de troupes des rangs policiers et cetera bu leen nangu ñii di leen manipuler di leen def loo loolu parce que jaruñu ko mérité wuñu ko te ci réew mi ngeen bokk moo wax tamit nii procédure judiciaire yi nekk en cours xam ngeen Macky Sall lu mu ci jublu Macky Sall Yewwi Askan Wi ci boppam la bëggul mu dem élection seetlu leen bu baax de dama bëgg waxtaan ak sénégalais yi bu baax nag parce que ñun dañ ñoo tooñ ba yàlla suñu borom xam ni tooñ nañu sénégalais xam nañu dañ ñoo tooñ te ci tooñ ñu la dëkk te boo résister ñu ne la déedéet tegal lépp ci suuf. liste nationale Yewwi Askan Wi ban sénégalais moo mun a nangu toog y un mois de cela ban sénégalais moo munoon toog ne nañ dem élection Yewwi Askan Wi dem élection te Ousmane Sonko du ci bokk Aïda Mbodj du ci bokk Cheikh Tidiane du ci bokk Cheikh Tidiane du ci bokk Habib Sy du ci bokk Déthié Fall du ci bokk ma dem ba ñii nekk fii yépp kenn du ci bokk kenn moo ko munoon nangu xam nga Macky Sall mooy koo xam ne dañ naan non fii moom sañu fee yegg loolu ko xamul Macky Sall moo koy wax tànk mi ngi làmb muy nooy day dem mu xëy ne ñooñu ñëpp duñu bokk ci élection bi ñu ne déedéet ki waay mu ne léegi seen liste départementale yi mooy sama cible xool leen arrestation yi c'est des arrestations ciblées Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké moo jiite suñu liste Mbacké ñëpp xam nañ ni Mbacké enjeu électoral bu rëy la cinq députés lan 400000 ou 500000 électeurs en tout cas ñu tuuti ci war na mat 400000 nga ñëwaat ñu ne Géejawaay 195000 électeurs nga xam ne enjeu électoral bu rëy la nga ñëw ne Ahmed Aïdara jàpp naa la ñu newaat déet Ziguinchor nga xam ne enjeu électoral bu mag la ne serait-ce qu'à titre symbolique Guy Marius Sagna mooy tëdd liste bi nga ne jàpp naa Guy Marius ñu ne jeexagul de euh, Pikine enjeu électoral bu rëy la Mame Diarra Fam nekk je crois deuxième sur la liste en tout cas moo war a nekk première femme nga ne jàpp naa Mame Diarra Fam ba nga xam ne du dem après euh, nga ñëwaat ne xam ngeen li tax keroog ñu taxaw buntu kër Barthélémy Dias toog fa ba le lendemain man sama kër toog nañu ba ay une heure yooyu ñu takk seen bagage dem waaye Barthélémy bi dañ faa toog ba le man génn naa dem ci ñoom ne leen damay dem jumaa ñi ne ma déet jàppuñu ma xëy naa dem ci ñoom ne leen sama waa kër dañuy génn jàppuñu ma Barthélémy bi bu tegoon tànk ci buntu këram ñu jàpp ko parce que tête de liste Dakar bi la ñu soxla woon stratégie la dafa teg ay pexeem te dara du ko delloo gannaaw askan bi dama bëgg ñu xam loolu dafa teg stratégie parce que moom mbir mi question de vie ou de mort la ko def kuy kuy kuy jàmmaarloog Macky fi mu ne nii soo ko deful question de vie ou de mort munoo xeex ak Macky parce que moom foofu la ko yóbbu fa mu leer amul lu ko jomb ci mbir mi li ma wax nii ay fee la xam nga du lu ma inventé yéen ñëpp mu ngeen ko gisal seen bopp su yemoon foofu nag mu ne seen mandataire national Déthié Fall moom si boppam soxla naa ko ndax bi ñuy di génn fi ñoom ñëpp a génnandoo Cheikh Tidiane yu mu génn na euh, nu mu tudd euh, Moussa Tine génn na Khalifa Sall génn na waaye instruction bi ñu leen joxoon mooy ñun kii la ñu soxla Déthié Fall soxlawuñu ñii ñëpp Déthié Fall la ñu soxla parce que si éliminé nañu déjà Cheikh Tidiane Youm éliminé nañu xalifa éliminé nañu Moussa Tine éliminé nañu Aïda Mbodj ñooñu soxlaatuñu leen woon donc stratégie bu leer la Macky Sall teg stratégie boobu nag jeexagul moo wax leen lan moo tax ñu dàq procès yi démb Malick Sall moom moo woote ne moom dafa bëgg dossier yi ñoom li ñuy ut mooy des condamnations de principe pour que gars yi tombé sous le coup de l' article 34 xam ngeen article 34 mooy lan mooy privation des droits civiques inéligibilité loolu la ñuy recherché fi mu toll nii moo tax ñu xam ni justice bi tey fo soo demee justice bi tey tous les jeunes juges sont des juges indépendants yu am ful la am fayda ñun ni ñu nekkee ndaw di xeex noonu la amee ay ndaw ci biir magistrature bi ñuy xeex dossier bi ndaw d'habitude flagrant li ndaw ñee koy jël mu xam ni ndaw ñi suñ ko jëlee relax pur et mooy am mu demander le renvoi pour ñu dem en audience spéciale pour que les chefs de juridiction ñoom seen bopp jël soo demee Dakar le juge Ba nga xam ne mooy président tribunal bi nga xam ne c'est devenu un faucon de Macky Sall te loolu moo garaaw parce que ñu ñu xamoon lañ démb ak barki démb xamoon nañ yan façon nit lañu mais makisal Sall day suul ndaanaan juge Ba boobu tey su ngeen sàgganul su ma waxee peut-être mun nañ daw dellu gannaaw mais boo moytul moom wala kenn kuy xaw a yem ak moom ñooy dem jël audience rien que pour defa faire des condamnations de principe des condamnations euh, yoo xam ne da leen permettre ñu dellu si sous le coup de l'article 34 daa di permettre au juge de prononcer l'inéligibilité mun na nekk sur deux ans sur trois ans sur cinq ans loolu lañ ci jublu te loolu la ñu fas yéene def suba à Guédiawaye avec Ahmed dara loolu la ñu fas yéene def avec Guy Marius Sagna loolu lañu ñu fas yéene def avec Cheikh Abdou Bara Dolly lii moo am Sénégal léegi nit ñi nañu léegi yéen croiser leen bras rek ngeen toog bàyyi Macky muy def loolu nit ñi bëgg a wax est lu xel mën a nangu la moo tax fii lenn moo fi des face à la justice de Macky Sall et je rends un vibrant hommage aux jeunes magistrats qui se battent à l'intérieur du système et mais surtout maa leen di encourager bu leen changer quelque que soit pression yi ngeen jël bu leen changer parce que àdduna gannaaw yàlla dara new fii te nit da ngay am gëm-gëm moo tax tey ñun mënuñu lu dul xeex Macky Sall changé wul virgule su ma déggee ñu naan nañu wax ak kilifa diine nañu wax ak diw ak Macky Sall yoonam newul ci kilifa diine. yoonam newul ci régulateur social Macky Sall bu jaaxlee ba ba ba ba sukk ba xam ne mi ngi waaja perte pouvoir am ci lay woo kilifa diine lu ko may du wax ak kilifa diine su kilifa diine waxee du ko déglu moo tax ñun ñoo amul pexe fii ma wax ko sénégalais yi mu leer xeex moo fi des nañu takk suñu ndigg xeex parce que gis nga àdduna benn yoon rek lañuy dund li am solo mooy naka nga dunde benn yoon la ñuy dund benn yoon la dee loolu moo fi des moo tax ñuy woo sénégalais yépp nag ne leen na ngeen gën a takku parce que xeex bi day door ñu ngi maintenir suñu activités yi ñu annoncé woon yépp nit nañ ko def parce que Macky Sall bu yaakaaree ni ci ay chars de combat ak ay livres ak ay tiire bal la yaakaar ni moom mën na tax ba noot sénégalais bi dafa xamul Sénégal Sénégal c'est un grand peuple li wane ni Sénégal c'est un grand peuple te Macky Sall su ko xelam doon may mu xalaat tuuti gis nga peuple bi génn démb manifester contre lui tëgg bool yi même peuple bi moo demoon devant le palais bi ñu jëlee coupe d'Afrique parce que peuple boobu xam na lan mooy la nation bu jotee bu nation bi wootee bu patrie bi no wootee ak lan mooy lan la ñu war a segg loo xam ne mbirum benn nit la boo xam ne pouvoir daf ko jiital ba lekkatul naanatul nelawatul boo defee loo xam ne peuple bi foofu la lay xaare en tant que président di dégg peuple bi yëpp bu ñu gagné coupe d'Afrique def nañ ko bi muy inauguré ay affaire am peuple bi yëpp dem na fa waaye bu mu dellu siwaatee ci li mu nekkoon peuple bi na ko d'accorduñu ak yow moo tax ñu ne peuple bi nañu yokk mobilisation bi parce que fexe ba Macky Sall jóge fi en 2024 loolu moo door tey na ngeen xam ni 2024 16 mois moo ci des bëriwul tant comme que Macky Sall changé wul dara ci doxalinam kenn warul wàcce ay loxoom di seetaan saa suñu woote waatee dañ leen ko ñaan parce que Sénégal mun na door waaye munul yeggali dañ naan Sénégal mun na door waaye yeggali moo ko jafe lii nag dañuy tàmbali kese bu yeewi askan wi wootee bu opposition bi wootee Sénégal yëpp nañu génn kenn ku nekk ak noo ko mën a defee moo tax ñu ne leen lépp loo xam ne programme nañ ko ci activité waxoon nañ leen ni am na le 29 activité bu ñu euh, programme ba pare changé wuñ ci lu toll ni tarfataayam lii lañu buggoon wax ci lu gàtt di yokk aussi beneen appel boo xam ne démocrate yi ne ci réew mi yëpp lañ koy lancé à commencer acteurs politiques yi rawatina ñi ñu bokkal xeex bi waaye mouvement citoyen ñoom ñëpp nag dañ tàllal seen loxo parce que dootul mbirum politique avenir u Sénégal la mouvement citoyen yëpp nag ak luy seen jubluwaay rek tàllal nañ leen loxo ci xeex bi képp koo xam ne it euh, société civile la de manière générale talal nañ seen suñu loxo ci xeex bi parce que du question wu affaire politique wala conquête du pouvoir déedéet waaye sauver suñu réew foofu lañ ci toll lii la ñu wax ci gàtt di jéggalu ci kàddu yi